toll ni focus la ñu jël focus mooy 2024 mettre président Ousmane Sonko à la tête pays. Mhm. te nee la ci lañ ci lañ nekk ñu ngi dox suñu en tout cas ñun raisonnement tam on va tout faire pour ne pas pour ne pas étant reste derrière voilà ah. loolu loolu am na solo d'accord naa ah. parce que aussi ni ku nekk da jox sa bopp les euh, pour mën a am li li nga bëgg mais li mu wax mooy euh, ki nga xam ne mooy seen espoir de seen leader euh, demam sax waragul moom il le sait moo tax actuellement il fait tout ce bruit pour que gars mën ko bàyyi mu dem normalement par rapport ak loolu noonu tënk ko jamono ji te bàyyiwu leen yéen waa Pastef naka ngeen ci nar demee laa

ñun moom fi ñu doon on est prêt pour 2024.